tekkite karab lu ko waral tey. waaw non dañuy ñëw toog affaire yi commencé gul. waaw. tàmbaleegul non sedd. dañoo toog nii rek dañuy soo a yegg si. saab dañuy installé. mais buñ jógee nga xam ne mbër bi jóg na. soobee yàlla waaw ba tey waaw wax ji bëri woon na xam nga mais tey ko yàlla doon tey tey moom wax na ba sonn mais dina xam ne tey nga tey waaw dina xam ne tey nga tey. waaw waaw loolu laa bëgg ñu def loolu laa bëgg ñu def ko favori non moo ma mag barki Seydina Mohamed moo ma magee deux ans barki Salaatul Faatiha laa wax moo ma magee deux ans yaa ngi dégg mais gars yi ñoom comme ça xam nga rek nu ngeen neexee ñu joxe favori mais nag garaaw man loolu moo ma gënal man mosuma bëre ñu jox ma favori. yooyu ay wax la rek yooyu moom ku koy mbër ku koy wax moom dañ koy bàyyi yow ngay wax mais ku xam Bulldozer moom gis di nga xam ne carrément mbër baa ngi nii xam dañ koy bàyyi atul tey di ngeen gis xeex na nagam nagam nagam lu koy nagamal doomi dafa def ku deful say. man dama dégg. armé si kanam tuuti moo ne du armé. nee na ca ba la fecc fecc na ko bu yàgg. bu ma nee tabra taxit tabra taxit balaa ma naan cakit cakit balaa gaay naan cakit cakit mu daanu. nga la wax loolu beneen bàq tey. du ko fa xaar. tàggu mbaar du ma bàq de. Ah. xam nga tàggu mbaar. mooy li géwél di tijjee. bu ma ko defee bala ma àggali mu daanu. mais bu xaaree loolu bu dëkkoo rek nga génn fat. du maa ngi ñaan yàlla suraal may ma ndam. sa doom day sekk dara a jàngal armée 2. waaw barki Serigne gi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bi di sant suñu ñaari waajur di gërëm waa Yoff gépp waaw Seck ndaanaan ko am xam ni ndaanaan la Seck ndaanaan moom jeexal nay wax doorul geer geer na géer xam na bal buy reyax bii kaw kon kii dama ne la doomi géwél la barki Serigne Bamba te buñ si jëmee après moo armée 2 am na dina am ni yàpp du jën. armé daa wex de. armé waxam tey lay sàlli ndax ki muy dajal xale la kon moom ba pare daanaa nu bëre kan la bëre bi nekk si bopp bi du bëre xale kii dëgg la xale la mais xelu mag la yor te buñ duggee si géew bi abar loolu dina confirmer. ñenn ñi amateur dañoo war a ñu ne ñaama sa digganteeg Mor Kang Kang gars yi ko mën waa gisoo xam nga amateur yi ñoom ñoom ñooy tànn seen i combat rek teg man lu amateur yi bëgg man bëgg naa buñ la ma woon sax yaa yaawu jaal tey pare naa man aw ma aw ma mbër mu may delloo wala mbër mu may daw ginnaaw man maa gën a neex utal combat si mbër yëpp léegi si diggante ak ñaar bu la joxee avance mooy moo moo ak ñama ko ko lekk buñ ma ko joxoon léegi ma yóbbuwaale ko ah. parce que man làmb laa fi nekkal temps bu ñu toog bëréew ñu dañuy tardé tey temps bi ñu toog nii bëréew ñu amul sens buñ ma ko joxoon tey tey tey dimanche bi ñëw nii man pare naa pour bëre barki alxuraanul karim ah yeneen mbër sax ah. waaw waaye mbokk yi dégg ngeen li ma ba Mor Kankang dafa leer ñu la ziar bu wér kay ndaxte dañoo gis nga ñëw mu ngi benn gis boo xamante ne nii publicité dafa am fu mu waaw mooy li wax daa am fu mu toll rek ñu xam rek jox ko cër incha allah rabi def nañu war a def. loolu la moo jël léegi adversaire bi. Hmm. mu ne bu la jàppee nga xamante yow làmb ji amatoo ci wàll. Ah, mën na ah, waaw loolu nag pour ko leeral il faut xam rek depuis boobu la ñuy xasante jëf dafa jot ci kàttanu suñu borom bientôt incha allah arbitre soufflé ma wane li ma mën man. bu duggee si biir géej gi mën nañu xaar tey xeex bu sax. waaw yaakaar naa ko nag parce que ndaanaan la ndaanaan laa te ay xale la ñu ñoon ñëpp waaw bu ci kenn yaafus daal ñu taxaw wane jom fula ak fayda ci kàttanu yàlla. ku dàq bëre ku dàq xeex ku bu dóor yàlla yàlla may ndam. Ah. waaw. yaa yaraax a ngi noonu. alburu luy yoon. la. borom bës bi. sax. yëgu ma alburu yi. saa yu jógee xaalis. ah xaalis. ponkol mu am bës xaalis mu ngi nii boo wër. boo amee bës amoo xaas car doo ci mën a yëg doo mën a yëg ci tata yi ah da ngay toog si car rapide sax sa épaule yi di déranger client yi. ay gis nga la. cent laa fayoon jour boobu. cent franc deux non deux ñaari place. Ah. waaw laa fayoon. mais loolu kalandoo la. rek. champion yi man man xaw ma sax ñi ma war a bëree staff bi ñooy waxtaan ba jubóo rek na ma demal bëre ji ma dem bëre ji. mais am na ñoo xam ne ñi nga xam ne ñu ngi seen bët ñii da am ñoo war a bëri ñoom. non ñi si kaw ci diggante ay guy gi Reug Reug Balla Gaye Bombardier ñooñu laa ñooñu laa teg sama bët. nee naa la borom bitigu mag boo gis boo xaree xol bi magasin bu mag nga fay fekk ak ay pël fuuta yu jaay. ay pël fuuta yu jaay pël fuuta yi ñoo daa ko wut. dama ne la li ma teg sama la sama bët du mbëri nag yi ca kaw laa bëgg rek ca waaye Jokal daa dugg si mbokk yi na ah Laurent Ndiago ngi noonu mbokk yi Ndiago baalu na ngeen guddi guddi Touba nee na daan dem Touba loolu la woote laa ilaaha illallah adversaire bu si dabal ara. Touba bi day gaaw wala. yàlla ngay xeex la bu si tàngi bu ñu. képp kuy takk mbër maay sa baay ay bajo bajo lañ. xanaa ne tey tekk la indi. man bokkuma ak mbër yi ñuy taal ñuy taxaw naa man yooyu nekkuma ci. loolu affaire du tapet pare. parce que alxuraanu karim. tey mënuñ si ko tey xeex. ah mënuñ see xaar xeex xeex bu bari. xeex bi tey sax mooy ëpp combat bi bu jeexee ñooy bëre dinaa ko dóor ba mu tëggal boppam parce que alxuraanu karim. waaw pousse na ndeysaan.